weeru koor gi ab mbaaxee la boo xam ne ñu ko fekkee woon daaw am na ñoo xam ne fekkewuñu ko kon occasion la si ñu jaamu ci yàlla sant ko ci yàlla moom nga xam ne moo ñu mayaat beneen opportunité pour ñu fekkee ko daaw te yàlla euh, pour ñu fekkee ko ren te yàlla ñu yàlla may ñu koy fekkee ay ati at at ñu nekk si topp yàlla ak topp sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa topp ndigalu yàlla te topp sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi passé monde bi passé ñu nekkoon si si Ousmane ibn Affan radiallahu anhu bu nekk saxaaba ci saxaaba yi ci saa sallam yu xam ne ñu màgg leen ci saxaaba yi saa sallam nga xam ne suñu xoolee umma bi yëpp mën nañ wax ne ñu gën ci saxaaba yi mooy Aboubacar Omar Ousmane ak Ali boroom xam-xam yi dañuy wax ne ñoom seen xilaafa yi lu mu toppalantee noonu noonu lañ gën a leen ci ay daraja te ku nekk ci ñoom am nga loo xam ne sa moroom am na ko te yow amoo ko maanaam yénte sa salaam dañuy wax ne ci yërmaane yàlla subhaanahu wa taala dañoo karkas la ñuy topp lu mu mel jikkoy Abubakar ak lépp lu baax la mais yàlla dafa tàggat la yéen sallam mu yor ay saxaaba yoo xam ne saxaaba bu nekk am nga foo am nga yow xaasiya boo xam ne sa moroom amu ko mu nekk yërmaane yàlla subhaanahu wa taala soo xoolee xaasiyatu Usmaan mooy si joxe kon képp kuy roy saxaaba yi si joxe da ngay xool Usmaan mu nañ joxe nga xool xaasiyatu Omar ibn al-Khattab si jàmbaar ak si ñeme dëgg ak si justice kon képp kuy roy Omar ibn al-Khattab nekk njit si justice dinga koy roy ak si maanaam euh, ñeme dëgg ak jëm yàlla subhaanahu wa taala ak topp yéen sallam ngay roy ku mel ni abu bakarin siddiq da nga koy roy si gëm yàllam ak siddiqam ak si wakkeelu lu mu wakkeelu si yàlla subhaanahu wa taala gëm ko maanaam roy ko si joxe ak gëm yonent bi sallam si léppam ba pare topp yonent bi sallam si léppam léppam léppam mi mel ni muy wax aaya boobu yàlla wa ma aataakum rasul fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu su ñuy firi aaya boobu dañuy wax ne topp leen abu Aboubacar si loolu maanaam soo ñëwee si ali ibn abi taalib soo koy roy si saxaaba yi danga koy roy si xam-xamam roy ko si njàmbaaram roy ko si li ñu wax ak tawaasun al wasatiya maanaam nekkoon si ko xam ne dafa digg doom si affaire yëpp maanaam nekk woon ku tar mais nekk woon ni ku yembar dafa nekkoon si digg bi nga xam ne soo koy roy loolu ñu ko roy mooy tawaasun yi moo nekk si ami adda middle tey ñu ngi demaat si si Ousmane ibn Affan nga xam ne commencé woon ne ko lundi bi passé kan mooy Ousmane Ousmane mu ngi tudd Ousmane ibn Affan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf loolu mooy turam ibnu qusay ibnu kilaab ibnu murra ba si ila axirihi moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi santee ci seen maam bu ñuy wax abdi manaaf te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mooy kan mooy muhammad ibnu abdillah ibnu abdil muttalib haashim ibnu abdi manaaf ñoom ñëpp lu leen téye mooy abdi manaaf mooy seen maam abdi manaaf moomu amoon na ñeenti doom ñu ñuy wax haashim nga xam ne mooy maamu yonent bi sallallahu alayhi ak ku ñu wax abdi shams nga xam ne mooy maamu umawiyin mooy maamu muawiya mooy maamu usmaan mooy maamu képp ku soxoo sosos maam si umawiyin nga ñëw ku ñuy wax nawfal nawfal ibnu abdi manaaf moo nekkoon maamu ku ñuy wax aljubari ibnu mutaim ak mutaim ibnu adi ñooñu moo nekkoon seen maam nga ñëw ku ñuy wax mutallib al mutallib ibnu abdil manaaf ibnu abdi manaaf mutallib ibnu moo nekkoon maamu ki ñuy wax saa'ib am na boroom xam-xam bu siiw a siiw a siiw si saaxibul madahib yi koo xam ne mooy maamam ki ñuy wax ak Shaafi'i kon Shaafi'i mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la si deret maanaam ñu ngi sant ñoom ñaar ñu ngi sant euh, ak Yonent bi sallam ku ñuy wax Abdi Manaaf Shaafi'i moom Usmaan nekkoon ku jege Yonent bi sallam comme ni nga ko waxee woon suñu dars bi passé si avant islam di ñëw nga xam ne daanaka bokkoon na ñu doon toogee ci jotaay yonent bi saa sallam di waxtaan ak moom ak moom Abu Bakar dars bi passé wax neen si osmaan si si mën a joxem ba ñu paree si loolu wax neen si osmaan nu mu nekkee woon ci saxaaba si yonent bi sallallahu alayhi wa nekk dëgg dëgg saxaaba si moom jàppale ko ci xaalisam jàppale ko ci direetam jàppale ko ci njàmbaaram léppam lépp yoo xam ne saxaaba jàppale na ko rek fekk na te Ousmane ibn Affan nekk ci njiit ga moom ak i saxaabam moom ak saxaabam Ousmane am benn vertu boo xam ne daanaka wax nañ ko mooy amul benn nit ci àdduna bi boo xam ne dina ko am moom kase la moom kase kase kase da yàlla jagleel loolu saxaaba yëpp ba sa nekk saxaaba yëpp mais képp koo xam ne jaar na ci àdduna bi te loolu du amati mooy ban kii. ah xale yu ñuy wax Ousmane ibn Affan ah saaxib mooy Zunurayn mooy moom kase mooy nit koo xam ne takk na ñaari doomu yenent moom kase kase la sant si moom ba yent bi sallallahu wax ko ne ko su ma amaatoon beneen doom ma may la ko yonent bi yamul si loolu kese rek yonent bi dafa woote si saxaaba yi mu ne ndax amoo leen seen kër yi koo xam nga mën leen ko may Ousmane ibn Affan seet naa si yàlla Ousmane borom ngëneel la mi paree si loolu euh, Ousmane ak lu mu dajalee maanaam lu mu jàppalee maam xarigent bi leen financé Ousmane soo xoolee am na li ñuy wax jaysul usra Ousmane ibnu Affan moo ko financé woon dafa fekkoon jaysu usra boobu nekkoon si si période yoo xam ne période yu métti la woon la si yéen sallam ak saxaaba bi mooy benn xaalis amul benn dugub bi ñorul li ñoon bay yëpp ki dara ñoru si ba pare nekkoon ci période tàngaay yamuñ si lu ko lu kose rek mais nekkoon fi ñu jëm mooy fu sori mooy fi ñuy wax euh, léegi fi ñuy wax Tabuk nga xam ne foofu daanaka léegi dañuy wax ne moom mooy si xuduudi kii la daal si xuduudi euh, Saudi Arabia la su ma juum daal euh, loolu ak i xaalisam ba ñu paree loolu waxoon neen si Ousmane ak nu mu dëkkee woon ak Aboubacar Siddiq nga xam ne moom ak Omar ibn al-Khattab ñoo nekkoon al mustachaaru awal mooy ay ñoo xam ne ñooy ñoo koy kansla yoo xam ne ñooy njëkk yi kansla yu njëkk yi si Aboubacar nga xam ne Aboubacar du daf dara te woowul Ousmane wala Omar ibn al-Khattab wala Ali ibn Abi Talib nga xam ne ñooñu ñetti ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon daanaka cheram si moom like cheer suñu wax cheer like ñooñu la woon si moom ba wax neen osmaan xalaat yi mu doon jox Abu Bakar Siddiq si xorubu ridda mooy si geeru ridda bi mooy ñu weddiwoon woon murtadoon yénte bu mu gaañoo si Abu Bakar si jamono Abu Bakar osmaan xalaat yi mu doon jox ci Abu Bakar si dajalay Qur'aan Ousmane xalaat yi mu jox si Abu Bakar si nommé ay nit pour ñu nekk ay gouverneur yeneen dëkk ba wax neen si Ousmane moom ba Aboubacar di dem Yarmouk di di di desanteeg Roome yi xam ne fexe na Xaalid ibnul xeex na si indi Aboubacar orders ba dajalewaat julli yi ba jullit ñëpp nekk benn ñu murtadoo ñëwaat ñu ñu war rey ñu rey leen ñëpp ñëwaat Abu Bakar dafa yónni woon beneen armée boo xam ne ku ñuy wax Saïd ibn Abil Aas la yónni woon la mooy nekkoon liggéeyam Saïd ibn Abil Aas xaw ma Ousmane ibn Abil Aas mooy damal taxawal ma ci booda Byzante yi bul geer yow sa yow daal nekk fa daal nga jox leen benn genre picc boo xam ne ñun néewuñu doole ñu bañ suñu mbir bul songu fekk songuñu la ah ba nga ko ba ñu songee Ousmane ibn Abil As si guerre bi si euh, si guerre romain yi dafa yónni yónnee si Omar abu Aboubacar ne ko gars yi de yaa moo waxoon ne bu euh, man bu ma leen song mais songu neen ma kon lu des si ñun descendants yi mooy ñu nekk maanaam ñu yónni armée su ñoom pour ñu ñëw guerre ak ñoom muy Yarmouk Ousmane dafa wax Aboubacar ne ko bu saxaaba yi di laajte muy wax abu Aboubacar di wax ne ndax dinaa dam wala duma dem abu bakkar defar lu la saxaaba yi yàlla maam lu la saxaaba yi wax te yow nekkoo koo xamee ku ñu tuumal la te nekkoo ko def ko ba bakkar di fal euh, alxadarami yaman fi ñuy wax yaman léegi xadara mawtal baxrayin yu mel noonu ba Ousmane dina Aboubacar yónneel koo xam ne si foofu ku ñu xam xam na waa dëkk ba ku ñuy wax al ala al ala ibnu al ala alxadrami nga xam ne si conseil wu Ousmane naka Aboubacar te foofu ñu parees loolu ñu ñëw si abu Aboubacar ak ba mu yemee bay waaj faatu di nommé Omar bin Xattaab Aboubacar dafa woo euh, euh, Ousmane bin Affan ne ko damaa bëgg nga wax ma dara si Aboubacar mu ne ko abu mu ne ko xalifatu rasulillah gën a xam abu bakar yi yaa gën a xam omar mu ne ko kooku dee lu nekk ci bitam nëbboowul lu nekk ci biir xolam maanaam ni ku baax la abu bakar wax neen si waxtaan bi passé abu bakar na nii na osmaan bind lu mu dénkaane ci si Omar su faloo maam su faatoo nee neen Ousmane di bind Aboubacar di wax muy bind Aboubacar di wax muy bind ba Aboubacar mujj gi mu xëm ba mu xamee xëm bi yàgg trop si tuuti Ousmane bind maanaam Aboubacar far na Omar bin Xataab Omar bu Aboubacar bu mu yeewoo li mu njëkk a wax mooy wax ma Ousmane na ma wax lu mu bind ba mu waxee Ousmane bind pare ba egg parti boo xam ne dina nii fal leen Omar ibn Khattab te moom na ne Aboubacar moom xamoon na ne waxul Ousmane ba bind loolu mais Ousmane si bëgg a dajale jullit ñi rek ak umma bi rek bind na Omar ibn Khattab Aboubacar dana ne allahu akbar allahu akbar yàlla jazakallahu xayran ba mu amee maanaam alhamdulillah ba yàlla jox ma xeet wii nekk sama wet ak nekk ñii nekk ay saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko su ma tànn woon Omar yow laay tànn loolu nekk témoignage bu ngande si osmaan ibn Affan ñu parees loolu ñu demaat si waxtaan bi passé wax euh, waxoon neen osmaan li mu dëkkee woon li mu dëkkee woon ak Omar ibn Khattab mu nekkoon dëkk bu rafet a rafet ak si jamono Omar ibn Khattab ba ñu waxoon ne Othman moom moo conseil moo advice Omar ibn Khattab mu muy bind ñëpp maanaam jamono jooju xilaafa islaam yi doon bind képp ku nekk xilaafa islaam yi bind xabibatu bind neen ko xabibatu muy juddu sàngam daanaka mën na nu wax ne boobu lañuy commencé wax na ni diw sàngam euh, jour euh, la juddu jour bi la gaañu lii moo nekkoon liggéeyam lii la am si xaalis fii lañ ko yebal loolu si jamonoy Aboubacar lañ commencé euh, jamonoy Omar lañ ko commencé def ñuy wax li ñuy wax diiwaan diiwaan alxilaafa maanaam xilaafa bi maa nit ñi dañuy bind neen diw sàngam moom lañ yebal fii at bu nekk li leen koy jox ak ñaata doom la am ak fan lay nekk ak la mooy liggéeyam xalaat boobu osmaan moo ko conseillé Omar ibn Khattab bu nekk xalaat boo xam ne macha allah xalaat boo xam ne daanaka ba tey nii système boobu la la dëkk yu bëri doxee kon da lay wan ne jamonoy Omar ibn osmaan moo nekkoon. ali ibn abi talib ak ku ñuy wax abdurahman ibn awf ak zubayr ibn awaam ak ñooñu léegi ñu taxawoon naka si yenn anam lañu falee Ousmane ibn Affan si xilaafa bi ba mu nekk amirul muminin Ousmane ibn Affan ñu xam ne ne euh, lu ñu paase woon darsu yi paase ñu xam ne Omar da koo jëm si julli Omar daa amoon ku ñuy wax abu lulu atul almajuusi alxabiis nga xam ne dafa nekkoon ay nit ñoo xam ne lañ jàppoon bi ñu nekk Persia mooy Iran léegi ci guerre yi ñoon dafa ñoom léegi mu nekkoon jaamu mu nekkoon jaamu ku ñuy wax al Mughira ibnu Shu'ba léegi Omar ibnul Xataab moom musul bëgg maanaam jaam yoo xam ne ay jaamu yoo xam ne naan arab leen di nekk si si xijaas bi surtout di nekk Madina sax moom mës a bëgg loolu moom daa moom daa mës bëgg euh, euh, màkk ak Madina di ñooñu ñu mel noonu duñ fa nekk mais. Abu Lu'lu al-Majusi dafa mënoon liggéeyam nga xam ne moom lu mu nekkoon la moo nekkoon liggéeyam mooy mooy da doon daaj moom dafa nekkoon ay kiiw jaas la woon def daal lu ñu koy waxee sax mooy kii dafa jaas yeeg yu mel ay ñoom wañ ak ñu koy waxee sax ah hmm? olof ah fachoron xaw ma ci olof lu ñu koy waxee sax tëgg tëggkat ah? waaw koo xam ne day tëgg like he's doing like middle stuff like léegi loolu moo nekkoon liggéeyam benn jour benn jour mu am ak euh, sangam benn kii bu ndaw daal benn misunderstand bu ndaw a ndaw ndaw mu ñëw su Omar di ko xam ne ko nii Mughira ibnu Shu'ba joxuma sama part sa affaire bi lii la may loo te joxuma ko yu mel noonu daal loolu bu mu amee comme Omar ibn Khattab moom dafa nekkoon nit ku justice nit ku bëgg maanaam ku nit koo xam ne dafa maanu noo tuuti tuuti si moom du nangu kenn du la tooñ mais loo ngan na ngan na si euh, si umma bi du bëgg kenn du la tooñ Omar ibn Xattaab woo Mughira ibn wax na ko waaw sa jaam bi Abu Lu'lu'at al-Majusi ñëwoon na fii wax na nangam li nga koy jox si portion bi bëriwul lu mel noonu Mughira na ko ah man de amir mu wo waxoon euh, li mu koy jox ak yu mel noonu Omar xool si si si ab xalaatam xam na ne Mughira tooñul jaam bi tooñu ko tooñu ko parce que li mu koy jox is fair léegi. mu woo mu woo abul al wax naag ak Mughira yu mel noonu yu mel noonu you know dafa yàlla e, Mughira tooñu la te Mughira mu lay jox mu ngi lay jox mais incha allah waxal Mughira na ko nii damaa bëgg nga def naan nank si moom te bu ko sonal si ay liggéey yu mel noonu benn jour Omar di di ja e, ñu doxante moom saxaaba yi ñoom Ousmane ak Ali ñu doxantu ñu ñëw ba toll si Abu Lu'lu na ko nii Omar na ko dégg naa yow de ay jaas yu baax ngay defar damaa bëgg nga defar ma benn Abu Lu'lu na ko nii danaa defaral jaas boo xam ne naa defaral paaka boo xam ne mosoo ko gis te arab yëpp ni nga ko waxtaanee ñëpp ni nga ko waxtaanee Omar doful Omar xam na ne waa ji da koo tëkku mu ne ko. wa adanil xabis maanaam kii maanaam bu mu doxee nànk ak kii ne wa adanil xabis ne kii damaa tëkku kii damaa bëgg a rey saxaaba yi ne ko amir muminin ndax duñ ko jàpp parce que mu ngi bëgg a rey mel noonu am amul mel ne nii du ñu jàpp si ay nit si ay xalaatu nit maanaam si ay ma samay xalaat nekkul dañuy jàppee ay nit pour rey ko wala ñu def ko àndangam damaa njortu rek. mais lu Omar waxoon dëgg la ba mu si xalaat ba mu jëmee Omar si julli Omar da koo fekk muy Omar daa fekk Omar di julli fajar Abu Lu la fexe ba taxaw si sàppe yu njëkk yi fekk Omar di jàng sootu Yusuf la doon jàng mu jàng sootu Yusuf ba allahu akbar di commencé di kii ak Omar baat bu neex ba kenn xamul macha allah rek abulu wala jëm ko nee na si ginnaaw la ko jëm ba mu ko jëmee si ginnaaw Omar tëdd mais ñu nekkoon si sàppe yi euh, ñu ngi wax subhanallah subhanallah yaakaar ne imam bi daa am lu ko dal wala daa fàtte wala yu mel noonu mais yu nekk sàppe yu njëkk yi xam ne lu xew nee neen Omar ba nga ko jëmee Abdullah ibnu euh, ibnu abbas day wax xissa bi mu ne ni day wax xissa bi mu ne ni moom omar li leen séparé woon benn saxaaba moo nekkoon seen diggante moom mi ngi taxaw sàppe yi deuxième sàppe yi fàtt naa saxaaba bu mu waxoon moo taxawoon si premier maanaam sàppe yi moom danee ni abdurahman ibn awf moo nekkoon seen diggante omar ba nga ko jëmee mu tëdd ba mu tëddee waa ji fekkaat ko foofu jam ko si diggante fii maanaam si niveau bu mu nekk fii diggante foofu la ko jam léegi waa ji yamu si rek mais Omar tee tànku Abdourahman ibn Awf ne ko nii julli maanaam jiital nit ñi nee na Abdourahman ibn Awf jàng inna atal la ko kawsar sab maanaam si euh, si beneen kii bi rakaxa bi pexe maanaam kii affaire bi nee abul wax mi ngi jëm gaay mi ngi jëm gaay si julli bi mu ngi jëm de moom ba tey bàyyi ko di jëm di jam di jam nee na jëm na lu mat neuf nit si maanaam si biir ñi ji si biir julli euh, jumaa ji ba mu demee ba saxaaba yi wër ko ba waa waa jumaa yi wër ko mu xam ne amatul euh, pexe da nga koo sànni benn yére da ko sànni pour mu kii daal da nga jël benn genre mbaal rek wala ab kii rek yé ab yére euh, rek ñu sànni ko ko mu xaw a gëlëm ba mu xamee ne moom la ko waree mu jëm boppam ba mu jëmee boppam nee na ba mu jëmee Omar Omar aaya bu mu njëkk jàng mooy wa kaana amrullahi qadaran maqdura maanaam lii de mbiru yàlla boo xam ne dafa maanaam yàlla dafa def xadar boo xam ne da daa war a ñëw te incha allah dina ñëw nee aaya boobu la la mujjee jàng Omar daf lu ñuy wax euh, lajina ma meeting boo xam ne urgent boo xam ne dañoo war a fal kat mooy nekk xalifa buy ñëw Omar na ni man de Omar bu ñu ñëwee di ko faj waa ji dafa daa ñëw di ko faj médecin bu ñëwee di ko faj mu ne ko naanal lekk Omar naan li ñuy wax meew dafa naan meew ba mu naanee meew mais bu mu naanoon wàccee fii mooy fu mu ko jamoon la meew bi génnewaat waa ji xool ko médecin bi xool na ko ni amir muminin euh, loo war a wax ci diggante bi wax ko balaa ngay dem parce que lii mënu ma ko faj Omar na ni léegi xilaafa bi laa laa war a tànn mu ne damay tànn six people yoo xam ne ñoo nekkoon ñu gën ci saxaaba yi te yonent bi sallam ba muy dem daa kontaan ci ñoom mu tànn Ousmane ibn Affan Ali ibn Abi Talib euh, Abdourahman ibn Awf Az-Zubayr ibn Awam Saad ibn Abi Waqas ak Talha ibn Ubaydillah la tànn mais si maanu am na koo xam ne si si si acharu basna bil la bokk ñoo xam ne ñooy fukki nit ñu gën ci saxaaba yi la bokk te Omar woowu ko mooy Saïd ibnu Zayd sa est-ce que xam nga tax la la moo tax Omar woowu ko parce que kooku cousin wu Omar la te Omar nee na moom lépp loo xam ne ci xilaafa bi la yu si dugal mbokk Omar na ni ñu ñu fal ko mu nekk lu ñuy wax népotisme dañ koy wax n'est-ce pas népotisme dañ koy wax n'est-ce pas népotisme lañ koy wax mooy far sa mbokk népotisme la nga koy wax n'est-ce pas like you know you fall like like you you nominate somebody is like your friend or koy wax maanaam ci anglais wala si leen maanaam di fal koo xam ne yaa ma neex la daal di fal yaa ma neex te loolu la ragal ba ñu toogee ci ci jotaay bi ñoom juróom benn leen Abdurahman ibnu Awf ne jotaay bi nañ fexe ñu ñu kii ko daal maanaam ñu bañ ko yàggal léegi lu ñuy def mooy na na kenn ku maam na na na ñett génn bàyyi ñett ñett génn ne mu ne ñett ñu génn ñooñu nag nañ tànn kan lañu bëgg mu nekk seen xalifa az zubayr ibnu awaab na ni man tànn naa ali ibnu abi taalib talha ibnu ubaydillah ne moom tànn na osmaan ibnu affan saadi ibnu abi waqaas ne moom tànn na abdurahman ibnu awf abdurahman ibnu awf na ni moom day génn si ñetti ñooñu léegi mu des ñaar mu nekk diggante osmaan euh, ak ali loolu jaaroon nañ si ba ba ñuy waxee naka la Ousmane ni ñu ko falee ba saxaaba yi ñoo d'accord nee nii nañu fale Ousmane nee dañuy wax Ahmad ibn Hanbal nee na mësta gis bayaa boo xam ne saxaaba yi ñu ñuy maam ñi lu ñuy dàkkoole su Ousmane bu nekk fal xilaafa si xilaaf islaam yëpp abu Aboubacar bañ koy fal amoon na ñu nekkoon ci amoon na bani saqiifa maanaam saqiifa euh, boobu amoon na ñu waxoon ne nañu fal Saad ibn euh, Muaz yu mel noonu ba ci waxtaan ñu fal Aboubacar Omar amoon na ñu ñu bëggoon Omar ku mel noonu Abdourahman ibn Awf bëggoon Omar dafa waxoon ne Aboubacar ne ko Omar dafa dafa tar dafay bañ mu tar mais ci ay waxtaanam. ñu juboo ñoom ñëpp ñu juboo ba ñu fal Omar nag kazalika Ali amoon na ñu ko protesté woon mais Ousmane sax ba bañ koy fal Ahmad ibn Hanbal nee na xamul ci téere walla jàngut koo xam ne nee na Ousmane neexu ko ñëpp ko bëggoon Ousmane ba nga ko falee Ousmane mi ngi toogoon ci ginnaaw sàppe la toogoon ñu woo ba mu ñëw jaay jox ko bay abi bañ ko waxee waxal osmaan dafa rus rus rus li mu wax mooy jëf moo gën maanaam jëf moo gën wax jëf moo gën wax maanaam dana maanaam faloolee ma fu may wax mais ma fal fu may jëf dafa kontaan wàcc mimbar bi saxaaba yi jaayanteeg moom nuyu ko macha allah nee beneen jour bi si la wax osmaan xutba bi dañu si wax leen si Ousmane si xutbam osmaan dafa wax ne moom danga koo fal maanaam moom falu moom fal boppam mais nit ñoo ko fal day topp si jàngale yéen bi sallallahu day topp si alquran ak yi jàngale yéen bi sallallahu wa pare topp si xalif euh, maam topp si abu ak Omar lépp lu ñu fa bàyyi woon mu bàyyi ko fi Ousmane xalifam nekkoon na xalifa bu bu yaatu nee neen si jamonoy osmaan si la maanaam économique bu nekkoon si jamonoy osmaan si la gën a ëppee doole nee neen saxaar nee neen jamonoy Ousmane xamuñu woon ku ñàkk ñàkk amu woon dafa dawoon ba léegi ñàkk muy commencé jeex si julli ñi daal Ousmane danoon génnee azaka dañuy ñu joxe ko gars yi na ñëpp am neen Saïd ibnu Musayyib nee na danoon toog chaque jour si bunt si buntu jumaa ji di wax nit ñi kaay leen jël ceeb kaay leen jël dugub kaay leen jël nangam affaire yi des maam kenn jël maanaam kon mooy ñëpp am na lu ñuy lekk ñëpp daal ñuy maanaam ñu sant yàlla jamonoy Ousmane ci jamonoy osmaan si lañuy la la la eggee ba léegi mën na wax Inde sax wala sax Pakistan si jamonoy Ousmane la woon ba islaam egg sax ba Afrique si jamonoy osmaan la la dugg Afrique carrément maanaam si la dugg Afrique ba dugg li Égypte ba ñuy wax léegi sax si si euh, côté Tchad boobu ba yem si Libye islam demoon na ba egg foofu jamonoy Ousmane kon lay wan ne islam. teel naa dugg Afrique teel naa dugg Afrique trop trop trop trop ci jamonoy Ousmane la Ousmane ubbee fu ñuy wax Xubrus xam nga Xubrus mooy benn benn island la bu nekk bii Europe Ousmane dem na demoon na ba egg demoon na ba egg Europe si ay kiyam maanaam si ubbi maanaam like euh, du conquest like euh, du conquest ba egg Europe daanaka egg kiiwu Europe. si jamonoy osmaan la la islaam njëkk amee xeex si ocean bi si bato jamonoy osmaan osmaan moo indi xeex si bato maanaam armée taxaw ak bato beneen armée taxaw ak bato ñuy xeex di sànnente nee neen yonent bi sallallahu alayhi dafa wax benn jour dafa dafa tëdd bu mu tëddee yeewu ree mu ne ku ñuy wax Ummu Sulaym moo nekkoon ci wetam Ummu Sulaym moo nekkoon soxnaayu euh, euh, saxaaba Abul Ayyub al Abul Ayyub nga xam ne moo foto yonent sallallahu alayhi si këram bu yonent bi soogee ñëw euh, Madina Munawwara moo ko xos like moo nekkoon xos yonent bi sallallahu alayhi wasallam Madina yent bi jékki-jékki euh, ree yent bi ba mu reewee mu ne sama umma damaa tëdd gis yàlla wan ma sama umma ñoo xam ne xad aw jabu moo xam ne ñoom seen seen seen aljana mën na daal mu ne soo leen gisee ñuy ngi mel ay buur yuy dugg aljana mu ne ko yonent bi ñooñal la mu ne ñooñ ñoo xam ne ñooy njëkk a dugg bato xeex fi sabilillah sama umma ummu sulaym ne ko yow yonent salaam doo ma ñaanal ma si yonent bi muñ tëddaat tëdd mu yonent bi yeewaat reetaan dina nii ba tey gént bi ay continuer mais ummu sulaym yow si la ngay bokk ummu sulaym boobu si la bokkoon nee Euh, loolu lu ko njëkk a def mooy Muawiya ibnu Abi Sufyaan la nee na jamonoy Omar la Muawiya di wax abu euh, di wax Omar di ko ni jox ma pour ma ubbi island boobu nekk si euh, côté champ bu ñuy wax Xubrus daanaka wetu Turki la daal si part Turki la boo xam ne si Europe la léegi su ma juumul léegi Omar ibn Khattab mu wow koo xam ne moo gën a xam am xam-xam affaire armée si jamono si jamono yi euh, daanaka ñu bokkoon ñu gën a xam affaire xeex si jamonoy Omar muy Amr ibn As ne ko nii damaa bëgg ma géej mais Amr ibn ko géej gi de wóorul amir muminin maam géej gi bu su dugg si saa si mu ne ko géej gi jullit ñi suñ ci tuggee bato bi tuuti na tuuti boo xam ne dafa mel ni nga jël ay wañ walla ay sax teg leen si benn genre bant boo xam ne si océan su ngelaw bi ëppee ñu ñu wadd te même suñuy génnee sax daanaka amuñu tu maam euh, du ñu amati benn kàttan si discrimination boobu Amina As jox Omar Omar dafa tiit ba dafa daa tiit ba jug toog bind mu aawee ne ko nii buñ ma waxati dara si géej gi buñ ma waxati dara buñ ma tu waxati géej gi bàyyi géej gi daal soo bëggee si xilaafa bi soo bëggee nga nekk am soo bëggee nekk euh, gouverneur euh, Cham Syrie géej gi moom bàyyi ko bu tuddee géej gi parce que géej gi wóolu te du ma jël risque euh, di di jël ay jullit di leen yëbb si si loo xam ne wóorul ndax ñun dundaat Omar ba mu gaañoo Ousmane Muawiya ñëwaat si Ousmane ne ko nii di wax ba tey di ko wax wàllu géej gi di ko wax na ko ni waa géej gi géej gi waaw ndax mën nañ jël ay bato maam ñu armé maam ñu am ab armé bato ba tey ñu koy wax ñu koy wax di ko wax na ko dama lay wax loolu amirul muminin Omar waxoon laa lay waxaat di géej ji bàyyi ko mais si ay waxam di wax di wax di wax. ñëpp topp sooy dem moom ñëpp a topp te bul génnee te bul bul génnee kenn si forcer ko pour mu dem bàyyi nit ñi ñu tànnal boppam bàyyi nit ñi ñu tànnal seen bopp mais nit ñi saxaaba yi saxaaba saxaaba yi xadis boobu ñuy dégg seen sallam bu ñuy wax nee ne ñuy njëkk a xeex si euh, si géej gi ñooñu dañuy dugg aljana saxaaba yu bëri dem fa ba Umm Sulaym foo fa demee Umm Sulaym xam nga lan la gaañoo Umm Sulaym de dafa war bato yi dem yor fasam dem ba wàcc si island bi rek mu daanu ba mu daanu fas bi si la gaañu nee na saxaaba yi jël maam saxaaba yi gas foofu fu mu gaañu noonu fu mu wadd noonu gas fa maam suul ko fa di wane góor baax na mais jigéen baax na maanaam màggaayu jigéen si islaam defar fa macha allah ab euh, suul ko fa bind fa turam maanaam di wane ne maanaam jigéen daal jigéen baax na góor baax na daal ku dem la baax na macha allah. Euh, loolu si jamonoy osmaan la xewoon kon osmaan moo njëkk ubbi géej gi Ousmane moo ubbi géej gi dem ba ay côté Turquie noonu osmaan dem na ba côté ay dem na ba côté ay euh, Bukhara Turkistan ak yooyu yëpp dem na fa Turkistan mooy ay Takistan ak Ouzbékistan ak yëpp yi ngay dégg tey nii nekk côté Russie bi jamonoy Ousmane la ko ubbi woon la la la diina dugg foofu ba tey osmaan maanaam dañuy wax ci xilaafam euh, nu mu demee woon maam ci jullit ñi ñan ñoo yoroon ay maam ñan ñoo nekkoon ñan ñoo nekkoon wilaayat yi euh, maanaam gouverneur osmaan yi ñu liima leen ci ñett euh, ñan la Ousmane joxoon wilaayat yi Ousmane Madina Munawara nekkoon moo nekkoon xila gouverneur foofu parce que euh, Madina Munawara moo nekkoon capitale bi mais Makkatul Mukarram mu fay tegoon ku ñuy wax Xaalid ibn la Xaalid ibn al Aas al al Maxzumi la fa tegoon après mu teg fa Ali ibn euh, Rabia ak ak ñeneen daal Yaman ñu ngi koy joxoon ku ñuy wax Yaala ibn Umniya après mu teg fa abdullah ibnu rabia bahrayn mu fa tegoon ku ñuy wax usman ibnu abil aas al saqafi sham mu tegoon fa muawiya basra nga xam ne léegi muy iraq mu tegoon fa ku ñuy wax abul moussa al ashari kufa saad ibnu saad euh, saad ibnu abi waqaas nekkoon na fa après mu teg fa ku ñuy wax walid ibnu uquba après mu teg fa ku ñuy wax Saïd ibnul Aas ak Abu Musa Ashari nekkoon nañ Kuufa Misra mu tegoon fa ku ñuy wax Abdallah ibnu Abi Sar ba Armenia sax bi ngay dégg euh, bi ngay dégg dëkk boobu sax Ousmane moo ko ubbi kon Ousmane xilaafam yaatu woon na jullit ñi bàyyi woon jihaad boobu dafa continuer woon ba jamonoy Ousmane muy wane ne màggaayu osmaan am na leneen loo xam ne Ousmane moo ko njëkk a def Ousmane moo dajale kaamin bi kaamin bi ñuy jàng bii kaamin bi ñuy jàng nii suñ koy jàng day ñaan Ousmane parce que Ousmane euh, moo dajale kaamin bi jamono Yonent bi sallallahu alayhi saxaaba yi dañoon bind jamono Yonent saxaaba yi dañoon bind euh, si ay kaamin amul lu amoon mooy ay bind maanaam bind ki day bind euh, yënd bi day wàccee wax yu euh, euh, wax yu su wàccee saxaaba yi ñi bind ko si ay këyit ñi bind ko si ay xeer ñi bind ko si ay si ay fu nekk rek nit doonul bind daal pour bañ a fàtte ba ñu demee ba jamonoy Aboubacar Aboubacar moom moo Abu Bakar Siddiq moom moo dajale kaamin bi maanaam lépp loo xam ne nit ñi dañ ko bind si ay xeer Abu Bakar dajale ko si benn kaamin mais ba tey amoon na ay kaamin yoo xam ne saxaaba yi yoroon ne ko yoo xam ne ñoo ko bindal seen bopp nee ba ñuy demee nee neen euh, ba ñu demee ba ba jamonoy osmaan euh, Ousmane ibn Affan léegi Aboubacar bu mu bindee kaamin bi da ko bind téye ko ba pare bind ay kaamin pare yónnee ko si ay kii si ay euh, wilaya mais islam ñu fa duggoon islam si si màggay islaam ñi xam ne ñoo duggoon ci islaam dem ba bëri ba xam ne léegi nekkatuñu sax léegi ay arab comme léegi seen accent yi su ñuy wax comme léegi ñoom suñuy jàng suñuy jàng alquran day feeñ si accent yi daal nee benn jour Xoseyf ibn Yamaama jugee Armenia xaw ma euh, Iran ne ko amiral muminin dañoo bëgg maanaam kaamin bi ñu dëggalawaat ko maanaam addiriki maanaam nga dëggalawaat kaamin bi si benn mushaf lu mu def mooy maanaam Ousmane ibn Affan li mu def mooy dafa jël kaamin bi mu bind ko si benn kaamin kase maanaam kaa lépp léppoon ci kaamin lépp loo xam ne kaamin la woon ci jamono ci jamonoom rek kaamin yooyu amatul moom mu bind kaamin boo xam ne mu tuddee ko kaamin euh, mushafal imaam la ko tuddee ba ñu ko bindoon Abdallah ibn Zubayr la woon ak Zeyd ibn Saabit ak euh, ci la bokkoon ñoo ñoo ko bindoon ba mu jël kaamin yooyu mu jël kaamin yooyu daf ko benn euh, nusxa boo xam ne benn kapi boo xam ne bindaat kapi boobu pare bindaate kapi yooyu pare après jël kapi bu nekk maanaam euh, bu nekk rek mu yóbbu ko dëkk yóbbu na cap yu Afrique Égypte Cham Irak ba bilaad du xam ne léegi mooy Iran yëpp mu yóbbu fa ab téere Ousmane ibn maanaam xilaafam dafa nekkoon xilaafa bu màññ boo xam ne bokk na lu ko rees la bokkoon mooy maanaam nit ñi dañoo demoon ba nekk ay maam ñi ñoo ñoo demoon ba ba guerre yi jeex ba lépp jeex maam xam nit ñi am euh, di am xaalis te amuñ te xamuñ seen xaalis fu koy dugal di wax ay wax yoo xam ne di euh, euh, di grand place mais xaay Ousmane Ibn Affan ñu ngi koy nga xam ne moom nit ñi dafa maanaam dafa nekkoon nit ku baax koo xam ne fitna bu muy fitna bu nekkoon si jamono bu mu ñëwee bëggu ko faj ak yu doole mais da ko fa da koo bëggoon faj ak ma ba maanaam euh, subahaat euh, nga xam ne maanaam protest yooyu ñu doon def ci jamono yi xam ne ay mun ne wax ñoo xam ne xamuñ lu bëri ba yéen di saa la nekkoon nii sa su la naafeq yi bëggee simil yëre xilaafa maanaam ab yëre boo xam ne yàlla moo la ko solal bul ko simil yonent bi sallam ba tuddee ñoo ay naafeq nga xam ne ñoo xam ne ay kiiw fiñ na leen ay nitu fiñ leen nga xam ne daanaka ñoom amuñu woon benn yitte lu dul di jaxase jullit yi ak di faible al umma islaami bi ba ñooñu daal ñoo rey Ousmane ibn Affan ci këram fekk muy jàng alquran ñu rey ko fa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam